jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu a baax tey jii ñu seet si ki nga xamante ni mooy Zarko mu ba mu ba la 15 ci digganteem ak Baye Mandione moo gën event moo ko tëkk ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi Zarko nuyu nañ eh, mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa sa sant di nuyu eh, waa zone bi ñu fekk si muy waa Daaru ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm si seen accueillir di wax ni ñun eh, waa. zone 7B de Grand Yoff ñu ngi préparé combat le 15 mai tey la woon open press bi gis nañu assistant bi gis nañ ñëpp niñ ci teewee di kontaan ci ñëpp ñi fi teew ak ñi fi teewul ñi nga xamante ni seen jot may na leen ko ak ñi nga xamante ni seen jot mayu leen ko kontaan nañu ci ñoom parce que ñun li ñuy def nii c'est juste pour Grand Yoff pour soxali Grand Yoff pour soxali zone 7B de Grand Yoff pour changer image zone 7B de Grand Yoff moo tax ñu jóg def lii bàyyi euh, Europe ak li mu àndal parce que mënoon nañ dem toog Europe comme suñu ay moromu mbër ñu ko defee kenn du leen kenn du leen bañ a ñëw seetaan si kenn du leen lijjanti su ma neexoon def ko parce que yàlla dimbali na ma ba mun na ko mais dama ko def toog cinquante ans dégguma sama turu dëkk dégguma turu Grand Yoff ñu koy dégg fenn fu ñu adressé Grand Yoff dañ siy wax lu ñaaw mu metti ma trop ma ne ñëw bëgg see xaar sama tànk tubay man ak waa doomu zone 7B de Grand Yoff jeunesse bi ñëpp bàyyiwuñu kenn Zarko peut-être moom la yàlla jiital tey ci làmb ji mais ci Zarko mun nañ ci jaaree defaru image yu Grand Yoff parce que euh, njiit du sàq boppam yàlla moo koy sàq te ñu xam ni incha allahu bu dee daan bàyyi ma njoon kese mooy tax ñëpp ñëw seetaan si ma billaahi wallaahi barke Serigne Touba dinañ ma ñëw seetaan si te dinañ ma ñëw seetaan si seetaan si waat parce que gis nga fii nii fii nii Zarko bii ñu gis nii sama gaay bu leen bu leen jaaxle de Zarko bi ngeen gis fii nii ah dam leen di wax rek dam leen di wax rek dañuy waxtaan Zarko bi ngeen gis nii fii nii ak Zarko bi ngeen di gis ci làmb ja bu yaboo ngeen xam ni du mës a doon benn fii amul dara lu ma fiy prouver fii amul lu ma fiy prouver amul lu ma fiy wan doomu aadama man yàlla moo ma def loolu amul lu ma fiy wan doomu aadama mais bu ñu demee ba ci làmb ja man foofu la fay samay adversaire nekk sama safara man foofu lay génnee parce que gis naa samay adversaire en face mais fii ñi fi nekk sama compagnon de guerre lañu kon ñu gis sama méchanceté mënuñu gis sama beneen kanam mënu ko nekk mais bu ñu demee ba jàkkaarloog suñu ay adversaire ñu xam ne sarko bii nii bokkul ak sarko bi ñu am ci écurie bi di profitoo nag di sant ñëpp mbër yëpp mbëri fi teew yëpp ñu ngi leen di gërëm seen assistant bu ñu ci bari dañ ne woon bi nga demee doo ñëw nga ñëw ñu ne Zarko est-ce que du perte repère nga ñëw daan ñu bàyyi ne est-ce que Zarko tàndu ko est-ce que fa nga tegoon sa loxo da nga ko fa tegaat sa diggante ak Baye Mandione xam na ci combat bi mu jógee ak fa mu jóge woon ak fi mu nekk jamono ji ak fa mu teg bëtam moom ma joon waaw mais Baye Mandione boo xoolee fu mu nekk ak fa mu nekkoon moom foofu mu nekk ak fa mu nekkoon daf fay delluwaat parce que xam na ni man maa gën a soxla. mais moom ba woon nag Modou Lo ay ñoom Gris Bordeaux te fa la ba tegaat bëtam fi mu toll nii. ñooñu romb nañu ko mënatu la bëreeg ñooñu. ci ñun la jaar te day wàccaat ci suuf xaar ñu ñun dañu jëli ñooñu man ñooñu ma yëkkati moom day toog Ah. moom moom mooy moom mooy tere yéeg. mais sa diggante ak Baye Mandione lan lañ ci mën a xaar. non loolu ci ci ci moom lay dépendre rek mu gaaw a jébalu rek mu gaaw a jébalu kese sinon dama koy ñaawee ñoo gën ne xale gën ëpp ko kàttan dàq ko bëri gën ko ñeme lu teppeeku du benn sax. mais est-ce xeex mën na ci am ndax Baye Mandione ku xam ku ko xam ku ne. na ko kaay xeex moo ko gënal kaay lekk kaay xeex ko gënal kaay naan moo Baye Mandione. sar Zarko dootul gaaw ci àddina. sama làmb dootul gaaw ci àdduna. lan nga bëgg a wax foofu. làmb yëpp dama koy koos. làmb bu mu amati waaye ma ñëwoon keneen ki ciy topp keneen ki ci toppaat Zarko bu bees la. ndàcc gi foo toll dégg ko ndàcc gi foog mu génn. foog uh-huh. nga ñaam mu teppeeku. kon da nga bëgg wax ne dangay ngay taxaw xeex ak Baye Mandione. kooku bi di la fanaan. bi di la fanaan man loolu bu bëggee ñu xeex sax ba taawi jeex <laughs> moom la moo ko dese. mais Zarko lan nga bëgg a wane loo xamante ni nit ñi xamuñ ko woon ci yow. wala dafa nekkoon ci yow dina la nga bëgg koo yee. c'est-à-dire xam man eh, yàlla daf ma natt woon lenn mooy bëgguma bëgguma bëgguma toroxal doomu aadama bëgguma tuut tuuteel sama adversaire quoi moo tax dama doon ñëw rek bëre mais loolu nag loolu jeex na xam naa ne entraînement boobu du mooy làmb. dama dégg dama dégg nga ne sa digganteeg mbay guy gi jëloo sa fukki dërëm yóbbu ko ci sëriñ te kombaa bi li nga am lépp ci gàllaaj nga ko def wala boog ci làmb ji nga ko defaat. waaw mais mooy maanaam xam nga da ngay man dama nekk nit boo xam ne damay fay pour entraîner man du ma entraîner gratuite boo gisee may dem Europe di dem Espagne loolu la man damay fay pour dem entraîner ay France man daw ma France naan damay liggéey wala damay dem boîte wala damay malgré des fois sax naa dem dëggal sama bopp immigré yóbbuwuma fa damay dem liggéey sama liggéey mooy lan yeewu suba teel entraînement dem ñibbi ak ndékki añ delluwaat entraînement dem pare delluwaat entraînement man loolu laa fay nekkee damay nelaw sax di entraîner loolu moo may yóbbu Europe man mais pas dem liggéey wala ut xaalis déedéet damay dem pare que man xam naa ni sama kattan ak sama sama morphologie rek daf ma bëgg ci àdduna budul budul bëre kon donc du nekk loo xam ne dama koy caaxaan lan ngay wax Baye Mandione Baye Mandione amatul luñ koy wax dimanche ñëw na ba pare di di ko xam ne xamal ni rek di ko ñaanal leen yàlla na ko yàlla may wér ba ci bis ba mu indi ko ci jàmm ak salaam ak wér ak sang ma daan ko ci jàmm xam nga mu dem ñu waa waaye caaro yi lëngu ko mu dem ñi bi waa Grand feete loolu kese laa kay wax amuma leen. mais ñu gis bés bi nga ci bëgg say morom ku ci nekk xam na ni euh, Amaneex day mobiliser la grosse noonu keneen ak keneen keneen keneen noonu ba ci bàyyi ma ñoon sax nee na Grand Yoff am loo fi mbooloo nga waa génn ànd ak waa Grand Yoff mobilisation bi fooj too dama bëgg nga xam ni gis nga Zarko xam nga Zarko kañ la ko waa Grand Yoff commencé seetaan bi ko suivre ci bëre bi may bi may final tournoi du souvenir waa Grand Yoff yëpp xamuñu woon sax damay bëre dañu toog ci télé bi rek gis gis ma gis ma gis ma may bëre mbapat tournoi du souvenir yàgg na bi may finaalu ñu ñu ci bëri samay copains sax ñu may àndal si liñ ñëw seetaan si donc man du ma leen ko condamné ci dara parce que Grand Yoff nekkul loo xamante ni du musoon nañ dugg ci bëre à cent pour cent majeure partie bi ñu ci bëri bu ñu duggee ci bëri ci graaf yi yàlla ak man la. dama leen di comprendre man wootewu ma mbooloo. man xam lan laay woote pour ñu defar Grand Yoff pas ñu ñëw que man su lii su paree nekk ci sama ci sama monde man après ku nekk da ngay dem nekk sa ci sa àddina comprendre li ma leen di woote rek mooy ñu ñëw man xam na même bu ma leen woowul sax dañuy ñëw parce que gis nga stade keroog gisoo open press bi kenn mais stade dañu ñëw comprendre parce que xam nga lan moo tax Grand Yoff ay faayitkat ñoo fi dëkk ay ñafekat dañuy liggéey ay bañkat ñi nga gis fii nii ñëpp dañu yor xëy te dañu dañ ñii dañoo wàcc ñëw toog di seetaan xam moo tax parce que eh, Zarko jaral na leen ko Grand Yoff aussi jaral na leen ko ñoo ñëpp dañ leen di remercier ñi nga xamante ni ay doomu Grand Yoff ñu ciy jàpp ñu xam ni euh, Zarko Zarko euh, li mu li li ne ci moom yàlla moo ko def te moom la yéene bépp jeune jeunesse su Grand Yoff ñëpp ñëpp ñun ñëpp nañu xam ni ñëwal koñ bi ñu ba non man yokkuma sama poids de non laa yore <laughs> yokkuma poids de sama laa yore non jaraluma ko ci non kooku bul jaaxle bul jaaxle kooku per suuro mi ngi fi per suuro mi ngi fi du yaay fii biir làmb séeréer ñoom bëgg ñoom bëgg Fallou ñoom ñoom Mor Seck ñu ngi fi ñoom ñoom Mor ñu ngi fi kooku bul jaaxle man man man man sénégalais laa de man sénégalais laa en plus dëkk Grand Yoff xeexee naa nu ne nu ne xeexee naa ko loo xalaat mais mais dama dégg dama dégg nga ne ko Euh, ku Modou Lo néewul doole boo ko jàppee da nga koy rey loolu nga ko wax. non mais wax boobu noonu du moom kese moo ko moom de. du moom kese de. Ah. loolu waxu képp koo xamante ni mbër nga. mais lan moo tax nga basé wu ci ku Modou néewal doole da koy rey lu tax nga wékku foofu wax ji. waaw parce que man Modou Lo mënu ma néewal doole. Ah. te moom Modou du ko néewal doole. moom Modou Lo du ko néewal doole kon donc du man ak moom quoi. dama dégg nga ne tamit euh, làmb ji du woon bët. wët du woon bët du woon bët. bët non non làmb ji du woon bët. non waruloon egg sax si bëtt bi. fan la woon yam première jël bi. première chute bi foo première jël bi. Euh, avant muy def quatre appuis. bi muy def quatre appuis benn jeune la waroon dóor dafa juum nag dóor ñaar. benn la waroon dóor jaar ci jaar ci flanc bi. Baba Ndione day wàcc direct. waaw foofu su ma déggee da nga ko bëgg a jàngal bëre. waaw yow man ku dul moom sax ñu dem. daal li ñu rek mooy. mooy ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax di di gërëm bu baax a baax ñoom lamin fay ah ñoom Khalifa Sall ñoom Modiob le maire ah, ñoom lamin Lamine Lamine Ibo bu Zarko ñoom Mansour Seck ñoom Babacar Kébé ah Aline Badara Kébé ñoom Mao Cissé ah, ñoom Boubacar Camara ñoom Adama Faye ñoom Cheikh Bakhoum ak euh, ñoom euh, Koumani Sagna ah ak ñoom ñaa ñoom euh, Jale Cale ah waa Grand yëpp bàyyiwuñu kenn ah ñoom Jibi Ndiaye ñoom euh, ñoom Kaay euh, Kaaw Kaaw kay te ñu koy jaale suñu grand Kaaw dafa génn àdduna u Ñaa aussi mafia daaru bi ñëpp ñu ngi leen di sant waa Sanjabañ mafia Oroli bi ah, waa Sanzala waa Opunjo ah, ñëpp bàyyiwuñu kenn. non violence bi non li ñuy li woote rek ah, li ñuy wax rek li ñuy wax rek li li ñuy wax rek mooy que ni euh, euh, ji. li ma leen sant mooy samay supporters nañ ñëw defaru ba naay si ñëw toog biir stade seetaan ma ma bëggal leen ñu daan waaju ndànk ñibbi si non à la violence képp koo xamante ni violence daf lay daf lay yëkkati li laa war a suuli mun nga toog sa kër ñi nga ñi nga xamante euh, ñoo ñooy doomu Grand Yoff man ñooñu laay woo nan ñu ñëw toog seetaan ma bégal leen di sant bu baax a baax di gërëm di sant ron grand bi yor salle bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di woo aussi toutes les autorités parce que waroon nañ dépasser sax di am combat dinaa ñu ngi woo ay autorités franchement parce que buñ bu ñu amoon li nga xamante ni c'est nécessaire kon dañuy liggéey rek continuer mu dem ci kanam ñu ngi woo autorités yëpp nag ñu ñëw jàpp ci combat bi ku ci mel ni ñoom euh, Khalifa Sall ñoom Boubacar Camara ah ñoom Boubacar kamara ñoom Cheikh Bakhoum ñoom Modiob ah, monsieur le maire ñoom eh, ñoom Cheikhou Kouyaté ah ñoom Yves Baraye ñoom i Dramé ñoom Nourou Niang ah ñoom Cheikh Bakhoum ñoom madame Ba di woo autorité yëpp ñoom médecin yi ah eh, ak grand Yves grand eh, di woo aussi tamit borom tàndeem ah, ñu ngi koy woo bu baax mu ñëw jàpp ci kam ci combat bi waa diaspora bi aussi bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp képp kuy doomu Grand rek képp kuy doomu Grand rek ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la woo ci combat bi di la ci xaar bu baax a baax a baax rawatina nag rawatina ñi nga xamante ni famille Zarko ñëpp sama côté yaay sama côté papa sama côté maam Ndoy sama côté maam Sall ñi ngi woo ñëpp ci combat bi euh, bàyyiwuñu kenn sama mbokk njaago yi nag ñu ngi leen di woo ci combat bi ah, ma njaku ji ko fuur ma njaku ji ko fuur ah ma njaku ji ko fuur ma njaku ji ko fuur aha sama mbokko haalpulaar yi aussi onon banndiraaɓe haalpulaar en men heɓi combat euh, oɗo dimanche minen e bayma ndion inchallah ñaganee allah dokku men victoire welɗo e dow makko sama mbokko soosey bani manden kool mbal kontolo mbal jeyla sama mbokk séeréer yi ah euh, rawatina aussi waa Adrien Senghor ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm sama mbokk séeréer yi boo gisee may may lim nii di wax façon langage bu nekk c'est-à-dire euh, Grand Yoff mooy mooy mooy boo ko boo déggee mooy Afrique Afrique en miniature euh, di gërëm aussi waalo waalo yu baax yaa ngi dégg ethnie bu nekk boo xalaat dañ la koy wax biir Grand Yoff kon Grand Yoff li ñu am dafa riche. Ah. ñun am nañ lépp. Ah, amul lu fi manqué. xeet boo xalaat mi ngi fi. comprendre nga pël Fuuta yi. joolaa yi bambara yi ñëpp xeet boo xalaat mi ngi fi. Ah. kon donc bu ñu booloowee rek lépp lu ñu bëgg dañ koy am ci àddina ci loolu nag lépp la ñuy wooyee ci ci loolu la ñuy wooyee ñëpp ñu kenn képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo grave rek grave nga dëkk amul locataire ah amul amul binationaux amul dara. képp kuy doomu Grand Yoff rek ñu ngi lay woo nga ñëw taxaw ci bis bi kilifa diine yi kilifa aada yi suñu mbokku chrétien yi ah ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw ci bés bi ñu taaral bés bi Grand Yoff am ndam vive Grand Yoff vive Sénégal di kontaan bu baax a baax di gërëm mbëru Grand Yoff yëpp ñu ngi leen di sant mbëru Grand Yoff yëpp ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm